jërëjëf euh, mbokk internautes yi dol soit di leen ziar ak di leen ndokkeel jataay bi miin ngeen ko euh, borom xam-xam bu yàlla may xam-xam ci baatin waaye yàlla may ci xam-xam mu cosaan euh, muy jëmm ju nangoo gëstu xam-xami mag ñi mu jaral ko mu wër réew mi waaye it wër àdduna bi rek ngir mën a dimbali jaam yàlla yi ak fu ñu mën a nekk surtout les Sénégalais de la diaspora Thierno Chérif Sow maa ngi lay ziar.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 gannaaw ba ñu nuyoo Sénégal di nuyu diaspora bi nu nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen baalu ak di leen di leen baalu ak ci eh, laylatul mawlid bi nga xamante ne génn nañ ci di ñaan yàlla yàlla defar mbir yëpp ci gàmmu gi ñu ngi ziyaar ñëpp di ziyaar kilifa diine kilifa aada yi di nuyu ñëpp di leen ziyaar te di leen ñaanal yàlla. Chérif ginnaaw bi nga demee dëkk ba ñibbisi yàlla def na nga ñëw indiwaat yeneen yu bees Chérif lii daan naa ko gis. xëj na bu ñu mësaan a rey nag wala yu mel noonu waaye njëriñam xaw ma ko. waaw xam nga lii dàll la dàll la dàllu dàll la boo xamante ne dàllu nag la nag yi ci suuf tànku nag lay nekk wante nag bu ñu reyee nag ba dañ koy summi pourtant lii buur def man lu ne lii mag ñi dañ ko daan sàngee nit ci façon xam-xam bu ne pourtant lii dañuy jël dañ jël dara ci àll wàllu liggéey def ko ci biir suul ko ci béréb béréb bi dootoo ci jóge kañu suul ci bërëb bi dafay dëju dootu fa jóge mukk buur xanaa xamoo lii tey mun nañ ci jël liggéey ci loo xamante ne yow mi nga xamante ne dangaa dangaa ragal ñu dàq la fenn ci benn place nga nekk ci benn place nga ragal ñu dàq la ñu jël lii buur rek defar ko sangat la ci place bi kenn mënu la fa kenn fay sax ba saa boo dem déggoo ma kenn du la fa dàq te heure boo xëyee danga fay gën a saf gis nga comme nit ki ni mu toppee ci ay nagam mu fonk ko heure bu ne di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan di leen wogg topp ci ñoom naan tig sa patron tamit noonu lay toppee ci yow di daw. moo tax lii dafa yéeme lool xam-xam dafa làqu wante soriwul na nit ñi jéem a jéem a jàng tuuti rek ñu am lu ñu xam gis nga xam-xamu cosaan moo ko alxuraan ñu ànd ndax alxuraan nuuraaniya la du zulmaaniya te alxuraan nuuraaniya la du zulmaaniya moo tax moo xam moo xam-xamu cosaan ñu ànd. alxuraan mënul ànd ak fétis loolu c'est impossible gaa dañuy kaf rek alxuraan li mën àndal mooy xam-xamu cosaan <laughs> te lii mun na lii rek doyoon na mun naa la ko décortil fii ba suba fii ba suba buur mun naa la ci décortil lu ne lii rek. njëriñam dafa yaatu. mun naa la ci sangat mun naa la boole benn euh, sunguf bu pël naan bukki waab ki jëmmi ma boole la ak ma sangal la ko buur dootoo ñàkkati dootoo ñàkkati koom. te koom yu sax ngay am koom yoo xamante ni nag koom yu yàqu doo am lu yàqu. say oto say machine ak da am waruwaay yoo xamante ne ñeent tànk lay am te benn bu ci nekk dafa lay déggal. waruwaay boo xam ne ñeent tànk lay am te bu ci nekk da déggal gis ngeen loolu di ay weewi nag waa Chérif li tàgg la sanq la daal nga dem tàgg tàggu pitax la xamu nañ koy waxee ci pël nag. Euh, ñun ñun pël ñu ngi koy wax sa buddi càggalal maanaam li mooy tàgg pitax pitax bu demee bu ti lekk fa muy bàyyi doom ya jóge fa ñëwaat dugg fa néegu néegu pitax la su ma la mënee comprendre néegu pitax nag daa mën a liggéey lu ne néegu pitax mën nga ci liggéeyal nit bayra néegu pitax mën nga ci naawtal nit mu dem dootul ñëw néeg pitax mën na lu ne gis nga sa buddi càggalal bi tey buñ ko defoon tey boole ko dëbb euh, ko ba mu baax boole ko cuuraay bu neex lool heure boo xëyee suur ko sa palaas kenn mun la tere am ay nit te client boo am client fixe lay doon client bu dul client boo xam ne dootu la bàyyi lay def. kon de lii de mel na ni baax na ci commerçant yi. kii baax na ci commerçant yi wante baax na ci keneen ku dul commerçant yi même baax na ci néegu sëy yi ndax si néeg boo ko cuuraay sa jëkkër xeenti ko dina dina dina bëgg gaaw di ñibbisi. comme ni pitax yi demee te lu ñuy ñu dem àll lu ñu lu ñu sori sori même bu ñu demoon fii màkk foofu la ñuy fanaan si waat sa jëkkër bu demoon fii ba Medina mun na war sa néeg lay fanaan si waat. kon de bii ma neexee tuddee ko sa jëkkër. bii bu la neexee nga ne ko dëj lu la neex. <laughs> Eh, dëj sa jëkkër mu ngi noonu waaye Chérif ndomba gi moom lii na ci biir lan la. waa xam nga ndomba gi wolof yi ñoo ngi ko tuddee wàllu mag man wàllu mag laa ko tuddee ci wàllu kàddu wolof bu nekkee pël ñoo ngi ko tuddee gédal mawbe gédal mawbe mooy lii yëfi du yëfi xale li yëfi mag la li tax mooy kii juróom-ñaari gaw la boo ko séenee ci biir. ñu ëw ko am yu ñu toftal yee gis nga yee yi wër ndomba gi juróom-ñaar la xanaa xamoo ne kii buur tey boo ko takkoon boo ko takkoon millier bu ñu ciblé ne fii ku fi aw ñu jàpp la buur boo fi awee de mel ne melax la. meles ngay def. meles ngay def dem sa yoon. buur kii caaxaanul kii nekkul ndomb yi gars di présenté ci marché bi kii ndomb la piir buur ndomb la pire ndomb gis xam nga lan lañ ko owee Euh, yére jaan bu mu summi xama nga jaan day dem ba ci kam rek sumbi summeeku bàyyi foofu yére bi yére boobu lañu jël composante ko ak ndomba gi boole ko ay jaat yu wér naan ko culli ndiwi njuuroo kaa culli ku ni ndaw buut buur kam woni malayka wër kam woni jinne ji ñat la loolu mooy lan loolu mooy lan chérif ñi moon daloon yow loolu ay jat la yooyu jat kiiwu jaan bi jaan bi mel luy dundaat te yére la fa bax ki dangar la buur kii tey boo ko takkee boo jubee mboola day mel ni président moo jub ñoom ñoom ñëpp dañuy jub xajal la. du fi xale. xaybu la xaybu kii kii mbuur yëf la. tey nag tey nag sama waa ji tey daa mel ni <laughs> daa mel ni yaram dafa tàng Chérif li lon buur lii kànnaar la xam nga gars yi dañuy tudd kànnaar kànnaar. waaw bari na ci marché bi de ba da romb sax léeg ñu ay kànnaar oh, kook naan lii di def rek nangam. bari na marché marché kànnaar bu ñuy jaay marché buur mënul jàpp nit. xam nga la moo mën a jàpp nit canal boo ko bëggee defar bu baax bi dangay wut dangay ngay wut da wut fas ay fas ngay composante ba pare moom ngay defaree kànnaar bi ba nga xamante ne ki nga koy defaral nag da nga am turam nga defaral ko ko moom rek moo ko mën a jëfandikoo te mënu cee caaxaan canal dafa am ay sart wante buur man wóolu naa kànnaar wante buur wóolu naa fas. ndax yow moom fas moom sa mbir la waaye man li ma gën a jaaxal fas yu ci bari yii der waa léegi der ak morceau. man gis naa ñoo xam ne wëñ la ñuy fase weñ mënul fas nit buur weñ bu ñu jëndee ci marché toujours moo xam nga la ma mën a fas nit li mën a fas nit mooy der bu sëriñ jëndal boppam taxawal ko ñu xoosal ko boppam mu surveiller lépp def ay programme am am yu mu ko sotti weer ko ba mu wow defar ay programme am ba pare yëkkati ko fas ko te fas dafa am heure bu ñuy fas buur nit mënoo ko fas muy dox ay soxlaam jigéen mënuloo ko fas fekk mu ngi firi boppam fi jigéen boo koy fas day fekk benn mu léttu ñaar ñaar fekk naaj baa ngi dugg maanaam heure jant bi di sow nga gis naaj bi xonk cur foofu la mag ñi daan fasee jigéen bu të bu dëgër bopp. jigéen mooy jigéen boo xamante ne da ko topp loolu ba sonn mu bañ heure boobu la ko mag ñi daan fas wala ku dëgër bopp toog bañ a bañ bañ a wuyoo waaw heure boobu lañ ko daan fas. koo xam ne da bëgg mu ne toog. déggal la heure boobu lañ ko daan fas. góor mënuloo ko fas fekk mu ngi dox ay soxlam da ngay bàyyi ba 3 heures de matin suuf ne selaw na la kii tëdd na nelaw nga fas ko te fi ngay xamee ne nelawagul boo ko fasee yenn bu nekkee ay takkaayam a ngi ci moom da ngay gis nga fas ko mu dagg wala boo ko fasee boo ko sàndee ci kaw ci dara en bu fas bi jàppul du takk wante bu jàpp da ngay gis mu takk ci saa si. kon boo ci defee li nga ci def mën nga koo sànni mu takk. maa la ko wax tey su ma ci defoon su ma ci fasoon nit su ma bëggee xam ne jàppul dama koy sànni fenn mu takk. su tagee rek may xam ne jàpp dama koy fasaat ba muy ñetti yoon pour su ma la fasee dangay xam ne am na lu xew. ñooñu naan dañ maa fas ba mënumaa yënku la plupart. lu am la wante fas yooyu day fekk boo ko fasee ba pare def am foo koy dugal. Mm-hmm. ba nit ki du mën a yëngu. buur xanaa xamul nit dina jël euh, bopp jaan fas ci nit ba pare dugal euh, dugal ko ci biir bopp bi takk ko findi fer ba mu dëgër ba pare ut lum ci des buur kooku dootul jëriñ dootul wax. day toog kuul benn yoon ñu naan la temps yow sa yaram bi dafa géey de sama gars tey temps yi waxoo de temps yi da nga nangam fekk dafa am lu ñuy jug ci yow. waaye léegi ñooñu ñu ko def nag Chérif te ñu bëgg leen dimbali ñooñu ñu sànni korte wala ñu sëf leen ba mënuñ jug. ñooñ dañuy sangatu buur xanaa xamoo lu dul sangat sangatu ko na gars yi di sangatu ndax kula fi eh, ku la romb dàq la yére dàq la njàng dàq la lépp foo foo toog di ko ñee di ko di ko woo di topp ci moom ci ginnaaw boo duggee saal de bain da nga fay fekk ay njaq muy. moo tax njaq yi kay tax may wax ndax damaa xam ne njaq yi kat lim mën ci wàllu cangaay xanaa shérif war na bari. waaw buur xam nga njaq yi lim mën ci sangaay mooy bëri yi nag indiwuñ ko woon yi dañ ko bàyyiwoon ci àll ba. bi paa ñu indi ko. gars yi ne shérif ñi ñëw woon seeti shérif ñu ñëw shérif ne indi njaq yi présenté ko ndax njaq yi am na lu mu jëriñ. Mm. yow xam nga am na loo ca xam. Mm. njaq yi. bi ci njëkk dañ la ci sangat njaq yi buñ la ci sangat dañ la mun nañ la ci sangat boo bëggee boo sawaree mun nañ la ci sangat pendant waxtu boo xamante ne boo paree foo ni tël boo dinañ xam ne am na lu am te ñëw am na lu mu àndal njaq yi buñ la ko sangat buñ la fekkoon ngay jaay saaku la ko sangatee léegi am sa place bopp mooy njaq yi maanaam ki gën a mën sax mooy ki nga xamante ne daf ko fekk mu pauvre loolu yorut dara kenn xamu ko mënul dara ñëpp daw ko njaq yi bu ñëwee def lay defaraat ba nga féete kaw. kon njaq yi moom mën nañ koo tuddee mos xam. waa ñaq yi mun na mos xam mun a nekk solution mun na nekk lu ne ñaq yi daal sekkering ci biir xam nga gars yi nag dañu tàmm piraar gi <laughs> moo tax léegi doo leeral bu baax waa jaratul wane léegi da ngay da ngay da nga koy junj rek ci xam-xamu cosaan Chérif tey da ñëw indil ma mbuus bu ne mu nekk mbuus yu bari lool te bu ci nekk defe naa ni yii ay sunguf yu saf sàpp la. xam nga xam nga xam nga xam nga buur nawet bu wàccee dem bay waaj a tàggu ci la maam ñi daan wut garab yi nga xamante ne ñoom lañ ñoom la ñuy xeexee garab duñ la tëj garab musal la ci seytaane garab musal la ci ay musibaak foofu la ko mag ñi daan wutee xam nga fa la mag ñi daan wutee garab bu bay rek bu nawet bi demee ba meññ nag ba rafet ba kenn kon di ceetu àll bi. nan waa àll bee rafet foofu la daan mag ñi daan wutee sunguf ay bayra murtoki saar holndot jaabi xam ne loolu may wax noonu mooy sunguf yi nga xam ne ñoo gën a la di sango di am foofu la ko mag ñi daan utee bu nag nawet bi demee bay tàggoo di gerte gi jeex na lépp jeex na mbéy mi jeex na léegi mag ñi wut seen i bagage bopp na nga xam ñooy faj ñooy dind ay bopp bu metti ñooy dind ay hémorroïdes ay programme ay tànk yu metti ñooy ñooy jël loo xamante ne pour xeex ak nit comprendre nga wala ku ñu liggéey ñu dindi ko foofu la ko mag ñi daan wute moo tax dama wut sunguf yooyu nag fi dem ko amee ndax moo ko mm-hmm. wutee yàggut mm-hmm. ndax nawet bi mu ngi mu ngi tàggoo. mu nawet ngi tàggoo Chérif sànq dañuy wax ci wàllu tukki wàllu këyit nga wax ma ci pitax ak yu doy waar yoo xamante ne que boo ko jëflanteeg nit ki bu doon lu mu doon sàkku la ci këyit wala wala ci tubaab bi da koy am ci nu mu gën a gaaw. waa gars yi xam nañ ko ci man xam nga xam-xamu cosaan moom laa la waxal. moom nuuraani yalla moo tax alxuraan la mën a àndal nuuraani yàlla bu gaayee ne alxuraan dafa ànd ak fitis loolu du dëgg ndax alxuraan du dem ci lu leen daalika taqdiru azizul alim comprendre nga alxuraan ci lu leer lu lay àndal kayit gis nga bande yu njëkk ya fiil ya ci daan nekk nga daan bande bi nga dox ba ci kam bande bi mel luy xoos nga génne ko jël fiil boobu noonu xëcc ko fiil boo xam ne fu bëri biir boo ko taal ne gis muy def biir bi ak pitax ak beneen secret bu ñu làmbal ci biir ci lañuy ñuy liggéey nit loo xamante ne pour nga bëgg am kayit lu kayit bi kirti kirti lu kaa bi kirti kirti buñ la ko defalee wallahi nga am kayit te xam nga ci dara buur yow da ngay am kayit te gars yi ñu ngi koy mos yow xam nga ci dara dégg nga vocal gars yi ñu ngi koy mos bu baax ñu ngi am kayit yàlla nag bu la booleek ay nit dina am ñi mbir yi baax dina am ñi yenn saa yi du baax wante ñi wante nga xamante ne affaire bi day xaw di yeex nañu nañu topp Chérif te bàyyi te te bu ñu bàyyi. Mm-hmm. waaw ñu ñu bañ a yàkkamti te bañ a découragé. bañ a ndax maa ngi ci ñoom ndax ndax nit ñi ñoo bëri. loolu tamit ma lancé waale appel boobu nit ñi ñoo kaw. dem dëkk ba léeg bëgg a ñëw fii Dakar nekk ci liggéey gars yi dafa metti dafa metti dafa metti nañu nañu nañu nañu nañu jàppale ñu ma tamit ni ma leen di jàppale dañ may jàppale yenn saa yi. ma nit di la may temps tuuti ci liggéey. di ma may yenn saa yi kii suma ma waaw ñu may xaw a tuuti. ndax instant bi buur wallahi wallahi buur liñ may boole ci ay nit yow xam nga ci dara te bëri ndax affaire bi fii ni affaire de kayit bi ñuy wax nii ñi ci defal ñëpp daanaka ñëpp gis nañu kayit yi. ku ci nekk da bëgg toog ci moom jëf jëf jëf jëf ci moom ful la ngir mu am résultat. waaw léegi nga kooku dem indiwaat keneen nit kooku indiwaat keneen imagine toi loolu day def ba nga xamante ne affaire bi day kat hmm. léegi moo tax ñi nga xam dañuy woote duñu duñu jot ku ma gis sa appel. bu soobee yàlla su ma la soo soo jotul fekk Chérif mu ngi nekk ci liggéey bu paree Chérif dina la woowaat. bu paree Chérif dina la woowaat Chérif. lii moom foog ma am ci moom. waa kii buur faaw nga am ci buur kii faaw ma defal la ci kii mooy chaîne. xam nga gars yi dañu wax chaîne naan ay Samsung bilaat man buur xam naa Samsung bilaat. buur xam naa Samsung bilaat. buur xam naa Umrul Xays. buur maîtrisé naa xam Xaatim Souleymane. buur yu bëri xam naa ko. wante yu bëri duma ko liggéey xam nga lu tax. jamono ji laaju ko. jamono ji ñëpp moo tax boo leen di liggéeyal da nga leen di liggéey ci beneen facette lii dama ciy liggéey loo xamante ne lu yéeme la dafa am benn der bu may jëfandikoo der bi ñépp koy tudd der bi fa muy jóge ñépp ko tudd kenn du xëy doo ko tudd ñépp ko xam ñépp koy catu ñépp koy làmmiñtu der bi dafa siiw lool te ñëpp ko xam lu làqu la soriwut moom laay liggéey la may liggéey dugal ko ci biir chaîne bi ñépp di la tudd ñëpp xam la foo foo aw ñu lay wone naan la kaay ñu fotowu. kii bayra la maa la ànd ak sécurité. bayra la boo xamante ne buñ la ko defaree ba dañ lay dañ lay sangat ba doog la ko sang doog la ko takkal wante dafa yéeme lool xam dama làq affaire bi. dama ko côté. nee naan la def ma ci Samsung bilaat def ma ci umurul xaysa def ma ci dara benn der la bu ndaw rek bu may def la may def. li la gaa yi di pirate dafa commencé bari. waa nag loolu moo tax léegi ma jël samay matukaay. <laughs> macha allah mu ngi noonu eh, Chérif Sow gis ngeen ko macha allah ci eh, eh, gis-gis bu leer bi rawatina xam-xam bi ko yàlla may li mu wax rek sànq dëgg la mooy ñi koy ñaanloo yàlla nañ koy comprendre léeg ndax toogaay bi léeg dafay metti ci moom te bëgg na client bu ci nekk nga am ci satisfaction vraiment ñi jaar ci ñun ñëpp dem ci moom wax dëgg yàlla am nañ ci satisfaction Chérif daanaka waxtaan nañu xam-xam bu leer. te yow saa bu ñu seqee jotaay euh, réew mi bu amee yëngu-yëngu euh, dañ ci laaj sa xalaat ndax xalaat ba nga ci am dafay nekk xalaat bu bu rafet. Euh, fan yi ku ne xam ne ni am na yëngu-yëngu ci sa kër maam Cheikh Sida Hadj Malick ci diggante Serigne Moustapha ak yan moom mooy Serigne Mbaye si boo moon kaddu laahi biir. kàddu bi ma ciy wax rek ñoom ñoo ko kàddu gi ñoom ñoo ko njëkkee ndax ñoom la seen maam waxoon baa siñ mimara ci baar ci biir baa siñ mimara gi seen maam jàngal leen ci ci suuratu al imran fi yàlla naan waxtasimu bi xablillahi a wala tafarraqu ànd leen bokk mooy ci guumu buumu yàlla gi te bu leen tàqalikoo waskuru nicmatallahi aleykum ndax tàqalikoo fu mu am fu ne leneen def am bu ànd amee nag ñaar la fu fu mbooloo daje man yow buur maag yow buur fu ñu daje xam nga kañ lañ naan tàqalikoo nañ bu kenn jógee dem wala bu maag yow li ñu wax kenn dem wuteew def leneen lu kenn waxut nañu yégalante seen biir di waxtaan wante loolu ñun tuuti nañ ci wax loola wante xam nañ daal alaaji Malick jàngalekat la boroom xam-xam la ki am fitu ne yaa xaaisal baxri li asdaafin indi asdaafun biha durratun ala min al kooku ndaanaan ki am fitu toog ne lépp lu nit di wuti màkk ci xam yonent bi sallallahu alayhi wa bul sori ñëwal Tiwaawoon man xam naa ko kooku boroom xam-xam la te njàng ci la yar waa këram yarul leen ci mistik mystique mag ñi buñ ko daan def au delà ci biti lañ ko daan def kenn daaw ko xam te ci xam-xamu cosaan lañ ko daan defee mag mu ne amoon nga magu pol bu la daan bu la daan indil ay programme yoo xamante ne ñoom xamoon nañu li xaraamul ñu koy jëfandikoo wante yeneen yi kenn xamewoo ko këru Seydal Xaaji Malik Si Maodo li mënoon ci lasaraar yëpp yëpp dafa toog ak moom topp yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa nee na topp Cheikhna Ahmad Tijaani comprendre moo tax yooyu yëpp wax dëgg yàlla yooyu yëpp ay mbir la rek yoo xamante ne mbiri àdduna la rek axiru zaman la ñu nekk ah, fit yi toogul ñëpp seen xool yaa ngi fuur jëm ci kaw kenn ku ne sa làmmiñ sa poos la nekk yàkkamte nga wax yàkkamte nga xas ta morom ngaññ sa morom loo xamal nit wax ko ko lu bon lu ne nga teg ci geru deru gor ñi fitne yooyu ñoo jàpp ci nit ñi wante wallahi gaa yëpp gaa yu yàlla lañu ñëpp ñu baax lañu ñëpp ñu yeewu lañu na kenn ku ne xoolaat sa bopp dugg sa néeg yedd sa bopp def def ni Seydina Omar daan def Seydina Omar buur def daan yedd boppam daf daan toog ci biir néegam xoolaat boppam ne waa Umar yow tey li nga def yow Umar ki nga dajal nag def ko lii ak li yedd boppam bu xëyee day commencé waat à zéro adduna nit day jël leçon Sénégal nañu bàyyi coow bi toujours tey liggéey te topp yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ñiñ mag ñu baax ñi bu liñ fi def daal lu rafet la daal buñ ko yàq bind nañu tegtale nañu wane nañu ñoom ak suñu maam ñu àndoon te dara mujj cee ñaaw ay e xam-xamu cosaan lu ñu àndee woon comprendre nga di liggéeyante di defarante di doxalante ñuy jàngalante seen biir di sànnante ay masala kii laaj kii ci laxdari yu kii laaj kii ci asmaawi yu kii laaj kii muqaddamatul adiya kii laaj kii ci risaala comprendre nga ci loolu lañ daan def dëkk bi neexoon bu ñu fekkewul sax nettali nañu nañu indiwaat loola hmm. indiwaat cosaan bi bàyyi topp daal adduna bi daal kenn xamatul lii lan la buur wante ku yàlla def defar nga defoon ndax yàlla moo ne wa yudillu man yashaau wa yahdi man yashaau maay jubal ku ma neex wante tamit maay réeral ku ma neex wante nag sart ci réeral ku ma neex gi fala tadhab nafsuka alayhim hasaratin bu bakkan di dem ci ay perte ndax inna allah alimun bima yasnaun man kat yàlla xam naa ñiy jëfe dëgg-dëgg jëf moo tax bu kenn dem ci ay perte perte amul solo. <laughs> perte amul solo mu ngi noonu di wax ju rafet di message boo xam ni euh, message la boo xam ne à mérité sëñ bi mu ngi naan tey la président de la république di génne liste ministre ñi naan suba ñi naan ginnaaw suba ñi bokkoon ci xamuñu est-ce ci bokkaat ñii bëgg cee bokk. waaw buur yow xam nga ci dara xam nga man affaire de njëkkante xam nga ci dara affaire njëkkante affaire de xëccoo. man lool man daf ma neex ba pare moo tax ma man ko daf ma neex moo tax ma man ko gis nga ku ci làqatu ci suuf boo ñu xamante man ak yow boxuma ba nga nekkoon de dina la jox pilis fa nga toog lu mu guddi guddi tey jii bu la ci nit woowoon balaa list bee gën nga dugal ko yeewi yeewi balaa balaa ñu ko bind man yow dinañ la dugal même bu la effacé woon man ba ma joxee sa tur mun naa def ba ñu dugalaat la waaw lool loolu leer na. même buñ la effacé woon dinaa def lu tuub ba ñu dugal la. xeex lay doon. même boo bëggee ñu rocc keneen dugal la man mun naa lool. <laughs> Chérif looy tàggoo. <laughs> in uridu illa al islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wa salaam wa rahmatullahi taala wa